internautes yi dalee nag jàmm goro président de la république Macky Sall frère eh, ci Marième Faye Sall Adama Faye xam ngeen ko eh, moom mi nga xamante ni nag daanaka dafa jaar gauche Macky Sall jaar droite ak eh, nag mouvement bi mu duppee defar sama gox di contrer saay su nekk li nga xam ne mooy agissement yu nguur gi fi nekk monté day frère première dame la moom Adama Faye dañu ko jàpp ci autoroute à péage bi ndax dafa daal di nag jël jaasi ak i kuur euh, dóor ko euh, ki nga xam ne moom mooy faru doomam la ñu wax ne euh, nag ku doon bëgganteeg doomam la daan muy ab si bi la daal di nag am moom Adama fay ne ñu nag moo ko daal di nag def nekk frère itam ci ministre Mansour Faye ñoo interpellé ko samedi bi la woon vers minuit yu peloton routier bu autoroute ñoo def lu numé bu ñu sukkandikoo ci information journal enquête moom Adama Faye daal lay kuuram ak martoom la dóor ko ki nga xamante ni faru doomam la doomam bu jigéen euh, kamu doon génnal di faram la daal di naka def ak taximan bi nga xamante ni moo leen doon euh, daal di naka dawalal euh, ñoom ñi naka moom ñi daal di koy jàpp libéré ko naka ca saa si ginnaaw bi nga xamee ni naka li nga xamante ni naka moom mooy ordre ba maanaam li nga xamante ni mooy ndogal ga ak ndigal bi dafa jóge fa li nga xamante ni moom mooy ca parquet bu ndakaaru la ñu daal di naka gaaw ñoom informé ko ñoom ñoo daal di naka sàkku ñu daal di koy libéré ci nu mu gën a gaawee euh, moom nag euh, euh, daanaka mbir mi ne ñu dafay concerner un des fils bu patron bu SAR ne ñu nag koo xamante ni nag moo jiite SAR di société africaine de raffinage kenn nag ci directrice ya doomam ja nga xamante ne dix-huit ans la daal ji nag am ak doomu Adama Faye di wuyoo ci turu A fay seize ans képp la am samedi dernier moom Adama Faye toog gisul doomam ba guddi Euh, ca la daal di nag génn di ko wëri mu géolocalisé téléphone am euh, ci benn KFC euh, ci nag autoroute à péage bi sax la leen daal di nag jàppe mu dal di jël otoom daal di dem nag wëri ju doomam taximan bi lankan du arrêté au moment bi nga xamante ni nag ñuy dàqante ci autoroute ba ci la nag taximan bi bëggul woon obtempérer ci injonction papa bi le mi doon ko wax mu daal di nag gaare ci wet gi mu daal di préféré nag déglu ay client ki nga xamante ni moom mooy nag faru doom ji daal di nag faru doom ju Adama fay bile moom itam finalement ñu coincé taximan bi daal di nag taxaw ca nag caaroy ca wetu gaar bu caaroy ginnaaw ñeenti ay nag injonction yoo xam ne def na ko frère bu première dame bi maire ba futu daal di nag génn ak benn barre de fer boo xamante ni nag moom na daal di nag tojee vitre fermée bu taximan bile situation bi nag mën na dégénérer aboutir itam ci benn mort d'homme loolu nag euh, sax dañ ko éviter bu fekkul woon ne journaliste euh, gendarme ya nekkoon sur place intervenir ñu ci euh, boobu leen nag xëccoo ak dóorante Adama fay daal di démentir ne nag la mu utiliser muy coupe coupe ndax nee na nag moom ku mu mën ci doon n'importe quel père de famille mënoon na daal di naka doxale moom ni mu doxalee ndax nag la ma bëggoon mooy jël sama doom ne ko itam à la maison maanaam dama bëggoon jël sama doom daal di koy nag indi euh, ca euh, kër ga parent yi nga xamante ni nag ñooy way juru euh, xale bu góor bi daal dinañuy porter plainte pour coups et blessures et menaces de mort Adama Faye itam porter plainte pour